asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonantam tëdd bi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu nu mën a nekk. dellu si seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen site bi ñuy wax yi TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye moo di Touba 28 Minam Deggo mbokk yi tey taxaw seetlu bi. ñu ngi toll fi ñu toll ci jàpp naa ne deux heures du matin tegal na ñaar fukki minute ñu bëgg a yëkkatee kàddu euh, ku ñuy wax ba dara Wade moom bi muy yëkkatee kàddoom une tegal na dara kàddoom yooyu nag sama kàddu yi daanaka yenn kàddu rek la yenn kàddu rek la déclaration bi mi ngi jëm ci membre yi Pastef yi ci la jëm te bu ñu tuddee membre yi Pastef yi kenn jiitu ci Ousmane Sonko dal na ko yàlla dindi ci xat-xat yi nga xam ne ci la nekk waaye ginnaaw fii nu toll moom kenn mënu koo wax walla kenn mën coo jot kenn mënta waxi tamit ne am na responsabilité ci lii nekk nii ñu bëgg a wax muy ku ni wax ak ni ton man xaw ma noonu soo mooy tur bi wala déet Euh, kàddu yu mu yëkkati ginnaaw mën nu koo jot nag walla Ousmane fi mu nekk xañ na am na ngànt ci wax ji waaye tontu woon na ca lu yàgg waaye nag tontu li dafa des loo xamante ni jàpp naa ne dañ koy def déclaration directement mu jëm ci kii nga xam ne dañ koy wax biram Souleye te doon député te bokk Pastef bi ko ñaareel mu jëm ci kii nga kii ñuy wax El njaay bi ko ñetteel mu jëm ci ku ñuy wax sëriñ Seex Coro Mbàkke di député ñoom ñii lii ñuy wax mën nañ cee tontu wala mën nañ cee tontul Ousmane Sonko mooy moom mii day wax wax ju ñaxaw joo xam ne daf ko jëmale ci sëñ Muntaxa euh, dëgg la Ousmane songu def na déclaration bu leer Touba wax ne képp kuy saaga kilifa diine yi bokkoo ci ñun bokkoo ci man loolu dëgg la lu leer la loo xam kuy saaga mais kii saagaam yee waxam ju ñaaw ji dafa adressé wu moom ne ci Pastef la bokk ba jonne tey Pastef lay défendre ci pës tur Pastef lay wax bi waxit lay défendre Pastef lay lay ci turu Pastef lay wax wane ne ci la bokk nit la koo xamante ni li nga ci njëkk a xam waxuma ñaaw làmmiñ gi waaye ñàkk wax dëgg gi nga xam ne nit ñi rek connaître nañ ko ci waxam ba noppi di ci concentré wu loolu man wax dëgg yàlla daf ma xaw a jaaxal ndax moom li muy wax na nga yëg ne dara dara luy dëgg lu ci am amul ñaaw làmmiñ gi moom yàlla def koo binde xañ na loolu la judduwaale ci biiru ndeyam euh, ci biiru ndeyam xañ na ñaaw làmmiñ la ci juddee ndax fi mu jóge xañ na moo ñaaw moo tax noonu la mën a mel benn bi ci des euh, wax jii muy wax ñàkk doon dëgg gi jéggi na gis naa nag lii may waxe tamit na ci waa Pastef bàyyi xel bu baax a baax a baax ne ab góom la boo xamante ni bu nu jëwul faj ko li muy yàqal Ousmane songo ak yàqal ko waa Pastef kenn kenn ku mën a taxaw réparé ko amul kenn ku mën a toog toog réparé ku nekk xam ne diggante Ousmane Sonko ak tariixa murit ku nekk xam ne diggante Ousmane Sonko ak Bawol gis ne bi mu fi ñëw di fi def si campagne ak mitinam boobu ñu ko aaye xam nañ ne suñ ko bàyyi woon ba waatu Touba génn murid yi génn teeru ko mitin booba dana semmal bu Kër Masaar moom Ousmane xamoon na ko waatu Touba xam nañ ko beneen bi ci desaat Ousmane songo élection yi paase gis na li ko waatu Touba lebal liñ ko defal gis na ko xam na ko bu baaxi tamit tax na député yim sampoon fii ñu gañeel leen gañe goo xam musta am bi ko ñaareel diaspora bi ku nekk xam nañ taxawaay ba fa am jàpp naa ne génne fa ña fa doon ay murit wala ña fa doon ay niti tarixa bu ñu leen fa génne woon la fay des mën nañ leen a dugal ci mbuus noonu ñuy def muus ñu def leen ko indi leen ndax bariwun fa bu fa murit yi génnee tiijaan ya ak ña fay nekk ci tarixa la ca des mën na koo def ci mbuus mbuusu mën nañ koo def ci saaku mel ni kuy sànni muus ay muus ni daan def te gis ngeen waa diaspora ba seen taxawaay bi ñuy taxaw élection yu fi jaar seen taxawaay dafay rëy gis ñu gañeel Ousmane Sonko lu rëy loolu nag mënunoo jóg ci benn waay boo xam ne dafa wax ne ci Pastef lay waxal guddi moom lay xeexal guddi di teg ci suñu kilifa yi nga xam ne suñuy kilifa lañ di ci teg lu ñaaw loolu mënunu ko accepté xaw ma accepté la xaw mu mësul mënunu ko continuer di ko continuer te leeralu ne kii ci pëstéef la bokk wala bokkul ci pëstéef ñun buñ xamoon ne bokkul ci pëstéef wala waxalut pëstéef ñun suñu yoon nekku ci mën nañ ko muñ euh, xam ne li muy def amaloonu benn njariñ mais moom day wax ci turu pëstéef bërki démboo njaay ci li ngeen di li nga xam ne ay fen la yu muy wax yoo xam ne kàcc yu ko gën a rëy nee na sàll Sall mun Muntaxa da ko woolu ne ko da ngay ñëw garde corps yi ne dañ koy dugal ci oto mu ne du ma dugg ci oto ñu ne ko da ngay nàngam fen fenn fen ràbb ay fen fenn fenn yoo xamante ni ñépp jàpp na ne lu dëggu la te fekk ne lépp ay kàcc la loola li tax ma envoyé directement leetar bi wala message bi biram su lay taxaw na weddi ko ne loolu amul sëñ Muntaxa mësta yónnee ci moom mësul wax usmaan song mësul wax ci lool ne ñi wax na ni jële source ci ñi nga xam ne mooy euh, ñi fi teewal Pastef source bi nag mooy kon El Malik mi source bu rëy la te lam doon def démentir di wedd ne du dëgg mooy waxe Elton maanaam eh, Akhenaton bi kon na génnaat weddiwaat lii wane ne eh, Akhenaton waxul ci turu Pastef bokkul ci Pastef te bu ko jiitu Ousmane Sonko doon na mel ni lu xaw a di weddi ay waxam ndax bin fi jàppee tojee oto Ousmane Sonko te Guy Marius Sagna lu mu yëkkul Euh, El Malick mi wala mu yàq ko ku mel ni euh, Biram Souleye ak ñooñu kenn xamul ba Ousmane doon wax ne bàyyi leen ñooñu ngeen di yàq lu nekk nga leen di wax te ñooñu am na leneen lu ñuy liggéey am na feneen fu nu féete kon ñoom nañ génn ñu démentir wax ji wala mën naa yàq lu rëy rëy rëy rëy ci Pastef ndax ñun sëñ Mountakha nag moo nu gënal képp képp moo nu gënal Ousmane Sonko moo nu gënal keneen ku dut Ousmane Sonko waa Touba gi bu ñuy jàppale Ousmane songo danoo jàpp ci moom am lu ko lii mooy dafa woote Pastef tuubaa ku nekk xam na murit yi Pastef ñu gis ne man naan am na lu ko Touba mën a saru loola nag si duñ ko jënde dara dara dara duñ ko ko jënde day am lu ñëw kay ñëw jiwut si tuubaa ñu méngale ko li nekk Touba ñu jënde ko Touba ñu boole ko ak li nekk Touba waaye du ñu jënde leneen feneen lu bokkut tuubaa kon na ko waa Pastef taxaw ñu wax ne bokku ci ñun ñëpp xam ne bokku ci ëllëg lu muy wax benn engage wu ci Pastef yoonu Pastef nekku ci waaw beneen bi ci desaat nee na sëriñ bi euh, li mu génne élection yi wala bureau yi ne duñ wotee tubaa loolu moom dafa xamut sëñ tubaa ak murit yi dafa xamut sëñ tubaa ak murit yi gis nga sëñ taxaa man duma ko diggal sañu ko waaye daa waroon a wax rek bu fekkee bëggut ñu wooteel kenn daa waroon a wax rek ne yéen murid yi bu leen woote man de du ma wootee te li des sama dund du ma ko wooteel kenn te jàpp naa bu ko waxoon waxuma la rek moom mu ne bu tuubaa bu nen génne bureau yi waaye daa waroon a wax rek yéen murid yi bu leen woote rek ba xam dinañ woote wala dina am ñu ci nekk murid saadax ñoo xam ne dañuy déglu ndigalal sëñ Tuubaa ba xam dinañ woote waxuma la nag mu ne bu leen wooteel diw si wala wala wooteel bu wo saa bu fekkoon ni tamit nee na wooteel leen diw sàngam bu boobaa diw sàngam moom man sama carte du ko may ndax suñ Muntaxa moomu gënal ko bu nu bàyyee nag ñu libre nenu yëfi àdduna li seet leen ku leen ca doy ndax sëñ Saaliwu loola la waxoon ban dikkee ne ko koo àndal ci nii mu ne yéen ku ngeen àndal rek la laa àndal mooy kun fi teg rek fenn nga wax fii ne Tuubaa wootee lu nu Macky Sall gañewu fii ndax te sëñ Muntaxa taxaaku nekk xam moom la àndal ba ne sëñ Tuubaa la ko dégg loola ndax daa xañ Macky Sall dara ñàkk a wooteel ko ñàkk wooteel ndax daa tax moom gañuwut élection yooyu gis nga wax ji billaahi wallaahi su fekkee ñi waa Pastef jóguñu ci réparé ko mën naa yàqal Ousmane Sonko loo xamante ni kenn kenn ku ko mën a répareel ci àdduna amul waaw wax ji bu yóbbu ngeen yéen koy xeeb-xeebal wala ni ngeen ko ñàkkal fulla wala ni ngeen ko ñàkkal fayda ngir ne diw sànga ma wax waaye wax jii li ma mën a waat ci yàlla ak yonante bi ne bu ngeen ko jox jógul demantiral ko seen bopp di ngeen ñàkk loo xamante ni dootu leen ko mën a tee dabootu seen i dund te ay ci bismillah na dem na nanu dem ñun jàpp naa ne kon Antoine Diome nee na woon ñii di wax te moom doon na wax jóg leen taali jóg leen def nangam ñi doon wax taali leen yàq leen def leen nangam moom moom kenn jiitu ko ci kon Antoine Diome wax na fii ministre intérieur ne ñooña dinañ dem ca réew ya nekk ñu kalaama leen indi leen kon tooñ googu ginnaaw dafa wax ne taali leen kër nangam ak defi leen nangam tax ñu ko jël lii mu wax ci sëñ Muntaxa moo nu gën a mettil fuuf taali leen lakk leen te ci la dëkk guddi ci la dëkk bëccëg man nag li ma ci ñor fi ñu toll tax may yëkkat sama kàddu li mu wane ne ci Pastef la bokk waa Ousmane sonk lay défendre waa Pastef lay défendre léegi yéen li mu bëgg a xam rek mooy ku mel ni Biram Souleye ak ku mel ni El Malick ku mel ni Sëñ Seex Coro defal leen déclaration ne ci Pastef la bokk ñu xam ne ci la bokk boobaa ñu xam ne ni faja wala ngeen ne nu kooku di wax di euh, di di Akhenaton bokkul ci Pastef waxul ci turu Pastef bu boobaa ñun liñ bu boobaa dañ xam nañ koy faje waaye mbir mii daal mënu leen nit ci cell moom mënu leen na ci cell bu Ousmane songo doon wax dinañ ko ko déclaré comme yéen a ko fi nekkal nag lii da ngeen ciy taxaw ba mu leer nit ñi bu ngeen ci leeralu nit ñi dana am nit ñi leneen beneen côté bu mu doxe ndax mbir mii mënu leen ko bàyyi muy yàq di di jaare ci kaw kilifa yi ngeen taxaw ne cell bàyyi ko ngir la muy wax te di ko wax ci turu waa Pastef la koy waxee nan no xamal ci la bokk ci Pastef la wala kooku bokkul ci Pastef lanu Ousmane Sonko waxoon nenu ndax bu nu xamoon ne am na ñeneen luy wax ñu lu mel ni lii muy wax waaye moom ñoo ñuy wax loola dañuy wane ne bokkuñu ci xamuñu ci ban park lan bokk danoo yor seen làmm yu ñaar mais moom dafa wane ne li muy wax lépp suba ba ngoon day défendre Ousmane Sonko wax jii daal ab leetar la boo xam bu ngeen nu ci gaawee tontu dana nu neex lool bu ngeen nu ci tontu wuti tamit ñun am nan tontom ñun am na tontom ñu ngi taxaw fii di ñaan yàlla may wérug yaram ak wérug diine